آه، الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نيونغي سانت يالا دي جولي تي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نيو ادنا بييب دي نيو افريك دي نيو سنغال دي نيان يالا يالنا يالا دوتي خيولم تي ريوم سنغال يالنا يالا بولي خولي يالنا لين يالا ديف بن جيمو lépp lu yàlla di séddale ci weeru koor bi tamit yàlla biñ ci kon ëppale ci mm. daraja yont yàlla muhammad mm. ñoo ngi ci weeru koor weeru ngeneel la weeru yërmande la weeru njëggal la weeru gore ci safar mm. ndax ñett yooyu la yont yàlla muhammad saa sallam wax njëlbeen bi mooy fukki fan yu njëkk yi yërmande la fukki fan yu nekk ci digg bi njëggal la fukki fan yu mujj yi gore ci safara la kon weeru yërmande la weeru njëggal la weeru gore ci safara la kon ñett yi benn bu nekk dafa am lu muy firi weeruk yërmande la <clears throat> dafa am lu muy firi weeruk njëggal dafa am lu muy firi weeruk tamit eh, goreel ci safara tamit dafa am lu muy firi loolu mooy catégorie ñay woor ndax ñay woor nekkuñ ci benn eh, cadre waaye dañoo ëppante dañoo gënante hmm. kenn ku nekk fi sa garaat toll ci yàlla sa koor foofu lay toll am na ñoo xam ne seen koor mooy ñàkk lekk ñàkk naan waaw ah, mooy kooru gi nga xam ne moom mooy gi charia jàngale hmm. wa in imruun xaasamaka aw chaatamaka fa qul inni saaimun hmm. su nit xulooweeg yow sax wala di la saaga neel man damaa woor loolu mooy catégorie koor gu njëkk gi doo lekk doo naan hmm. lépp la charia tere nga bàyyi ko ñooñu ñoo ngi jot njëg yërmandeg yàlla beneen cadre bi <clears throat> ñoo ngi ci maxfira mooy njéggal mooy ñooñu nga xam ne dañoo woor seen koor yegg na ba dem nañ dootuñ gisati lu dul yàlla loolu deuxième cadre bi la ñetteel bi nag mooy seen koor dem na ba dootuñ xalaatati lu dul yàlla ñoo ñoo taxaw ci maqaama e, goreel ci safara ndax koo xam ne yegg nga ci yàlla ba dootoo xalaatati lu dul yàlla sa maqaama raw ki nga xam ne dootul gisati dul yàlla te kooku tamit maqaama moo raw ki nga xam ne day woor kooram moo ngi yem si ñàkk lekk ak ñàkk naan bu njëkk ba ñàkk lekk ñàkk naan la yërmande yàlla ngook ñaareel ba mooy maxfira njëggal da ngay dem ba dootoo gisati lu dul yàlla Cheikh Abdul Qadir Jeylaani hmm. daan na wax siyaami huwa al imsaaku an ruyati siwa wa fitriya anni nahwa wajhika rajiu man su may woor sama koor day firi ne damay dem ci yàlla ba dootuma gis lu dul yàlla su ma wooree may woor ci lépp lu dul yàlla woor ci dara mooy nga bañ koo gis bàyyi ko bañ koo bàyyi xel dootoo ko faaleeti maanaa sumtu anhu mooy abandonné naa ko hmm. kon euh, ku woor ci lu dul yàlla kooku mooy firi ne dem na ci yàlla ba dootul gis lu dul yàlla hmm. waaye nag gis lu dul yàlla am na lu ko gën a jafe mooy xalaat yàlla kese fekke lu dul yàlla dootul dugg sa xol loolu lay Umar ibnul Farid di wax falaw xutirat lii fii siwaaka iradatun ala xaatiri yow man xakamtu biri dëti hmm. man dem naa ci yow ba tey su ma xalaatee lu dul yow damay jàpp ne génn naa lislaam loolu nekkul kenn ku nekk ma mën a yegg ci maqaama googu waaye koor dëgg-dëgg foofu la yóbbu nit nga dem ba dootoo xalaatati lu dul yàlla mut mislama maata ahlul hawa zaabu ishtiyaaqan fa naalul muna loolu mooy dee ci yàlla waa ji na deewal ci yàlla mislama maata ahlul hawa comme ñooñu mbëggeel ca yàlla nañ deewee woon za bushti yaa kan dañoo seey ngir bëgg yàlla fannaalul mu naa ñu am seen càkkutéef kon weer wi ngeneelam weeru yërmande la ngeneelam weeru njëggal la ngeneelam waaye weeru goreel ci safar ki nga xam ne dem na ba dootul xalaat dul yàlla kooku yàlla goreel na ko ci safar kooku moom moo ngi ci ajjana ndax ajjana dëgg mooy ngay dund yàlla te dootoo yëggati leneen lu dul yàlla moo tax am na ñu nekk ci àdduna ñoo ngi dund ci ajjana abu yazid al bastami daan na wax lawla aninu sahar lama ahbabtul baqaa bi haasihi daar su nekkul woon bind yi may bind boobu maa ngi xalaat ci yàlla côté fajar ma am sentir yéeg-yéeg ca yàlla di bind bind googu may bind côté fajar su nekkul woon bind googu du ma sax bëgg des ci këru àdduna maanaam ndekete qul li mulukil ardi naamat uyunuhum fa haadaka mulkun laa yubaau bi dirhami waxal buuru àdduna yaa ngi nelaw waaye am na geneen nguur mooy nguuru ci yàlla maanaa ci sentirati dootoo yëgati dootoo ci lu dul yàlla koor dëgg nag foofu la yóbbu nit ki ñoo ngi ci weer woo xam ne weeruk alxuraan la ñoo ngi ci weer woo xam ne weeruk leylatul qadir la weeru koor su amuloon benn ngeneel lu dul alxuraan ci la wàcc rek loolu rek doy na weeru koor ngeneel maanaa weeru koor du alxuraan rek a wàcc ci moom mais tawraat bi yàlla wàcce woon ci yonti yàlla Moussa ci weeru koor la wàcc injil téere yonti yàlla Isa bi yàlla wàcce woon ci Isa ci weeru koor la wàcc zabour téere yonent yàlla daawuda bi yàlla wàcce woon ci daawuda ci weeru koor la wàcc alxuraan ñëw alxuraan yàlla ne inna anzalnaahu man maa wàcce alxuraan fii leylatul qadri ci guddig leylatul qadri moo tax am na boroom xam-xam yu ne woon leylatul qadri mën na génn weeru koor waaye alxuraan saxal na ne leylatul qadri ci weeru koor rek lay mën a nekk ndax yàlla wàccee na alxuraan ci weeru koor te ci guddig leylatul qadri la كم كتي وير كور koor lañ ko wàccee shahru ramadan allazi unzila fihi alquran la yàlla wax weeru koor man maa wàccee ci weeru koor alquran kon xam nañ ne comme que weeru koor man maa wàccee ci weeru koor alquran ليلة القدر biir laylatul qadri laa ko wàccee kon laylatul qadri bi mënul génn ci biir weeru koor bi yàlla nag wàccee laylatul alquran ñaar yi rek doy na ci ngeneelug weeru koor suñ doon waxtaan ngeneelug weeru koor ndax laylatul qadri julli ci benn rakk moo ngi yemoo ku jaamu yàlla junniy weer maanaam ñe juróom-ñetti fukki at ak eh, ñeent yu tegal ay weer xam nga loolu ngeneel googu yàlla rek a xam fi mu tàmbalee ak fi mu yem te xeetu yont yàlla muhammad la ko yàlla jagleel ñañu njëkkoon amuñu laylatul qadir ñañu njëkkoon am nañ ay téere waaye amuñu lu mel ni alxuraan laylatul qadir nag yàllaa ko nëbb ci biir weeru koor su weeru koor wi tàmbalee guddi gu nekk rek jàppal ne laylatul qadr la pour nga dajeeg laylatul qadr fa kulla layaali faataqid laylatal qadr loolu la woykat bi nag wax ne fa kulla mri in talqaahu fal xadir ataqid wa kulla layaali faataqid laylatal qadr fa kulla mri in talqaahu bépp nitu yàlla goo dajal fal xadir ataqid jàppal ne moom mooy xadir xadir borom maqaama gu màgg googu te daan tarbi yent yàlla Moussa alayhi salaam koo dajeel rek jàppal ne xadir la bu boobaa da nga daje xadir sinon su nekkee ne koo daje rek nga ne du xadir xadir mën na laa romb guddi gu nekk tamit ci weeru koor jàppal ne guddi gi laylatul qadir la fa kulla layaali fa ataqid laylatul qadir bu boobaa da nga dajeg laylatul qadir waaye su guddi ñëw nga ne gi du gii mooy laylatul qadri laylatul qadri mën na laa romb nitu yàlla yàlla def ko nëbb ci biir mbindeef mi comme ni mu nëbbee laylatul qadri ci biir guddi yi بن بن عارف billahi بن بن woykat ne القدر ان qadri خاف ان الورى كما خفيت kama علمهم an القدر فذو qadri ان الله qadri مقام allahi borom maqaama خاف ان الورى yàlla xaafin anil مبنديف day làqu ci mbindeef mi léeg-léeg nit am pouvoir bu rëy ca yàlla waaye fekk nga nek kuñ xam kuñ ragne ci nit ñi fekk amo ben maqama ci yàlla motax gis nga yàlla limuy def Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu dan na wax rubba abdin قد ألا عند العيون كأنه قد برحا حيث يبين وسيته انتشرت في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن رب عبد من برنا جام جو خمنا قد ألا عند العيون سوكو جيسي كو مغلا تي بوتو نيني تورم دا ري تي نوب نيني كأنه قد برحا حيث يبين فيب فون فيم فيب فون فين رك mu mel ni xut bu zamaan moo taxaw wa siitu hun tasharat fil buldaani turam daal di tasaaroo ci àdduna bi waaye wax wakal xirdi la dal rahmaani soo demee ca yàlla moom ak golo ñoo yem maqaama ca yàlla li Cheikh ahmad Bamba ko wax ndax feeñ na waaye amul maqaama ci yàlla nit nëbbatu nag fekke maqaamam daare ci yàlla comme ni laylatul qadri nëbbatoo fa laylatul qadri tax fa waxee xayru layaali waykat bi ne laysal alxamuulu bi aarin alamri in zi jalaali fa laylatul qadri tax fa waxee xayru layaali laysal alxamuulu bi aarin ñu ñàkk laa xam nga nëbbatu sama xaama nëbbatu bi aarin nekkul gàcce alamri in zi jalaali ci nit koo xam ne yàlla def ko may maqaama gu màgg ndax fa laylatul qadri tax fa laylatul qadri ngi ni làqatu te waaye xayru layaali moo gën ci guddi yi kon weeru koor weeru